di jiite kuréel bi ñuy wax association nationale des albinos du Sénégal muy association boo xam ne donc euh, mën naa ne initiative ñaari mag ak rakk lañu ku ñu wax Galaay ak Bamba euh, ñu ngi ko créé en 1995. et biñ ko créer ci la ñu am euh, soutien ambassade des États-Unis euh, ñu accompagner ñu à hauteur de dix mille dollars ñu tabax centre bi ñuy tuddee centre pour la promotion et la réinsertion des albinos qui est le sal centre communautaire bi nekk Sampaate donc centre boobu li ko tax a jóg mooy euh, jàppale albinos yi nga xam ne dañ leen a beddi donc boolewuñ leen ci dara amuñu njàng amuñu formation gis nañ ne li ñuy def mooy mooy yalwaan kese la ñuy def donc. centre boobu li ko tax a jóg mooy fexe ba albinos yooyu noonu ñu jàppale leen euh, ba ñu mën a am am njàng ba ñu mën a am euh, maanaam tàggat euh, nekk ay nit yoo xam ne vraiment li nga xam ne ñoom la yeneen acteur société bi mooy ñi nga xam ne dañuy liggéey tey albinos yi di ko def. e ñu gis ne initiative bi nga xam ne mairie Thiès bi jël na ko muy le maire Talla la ak otom bi nga xam ne mooy ambassadeur bu Tchèque ñëw nañu tey euh, visiter centre bi vraiment euh, mu wane ne maire bi li mu jël benn pone muy liggéey ci maire bi muy mu ci maire bi muy exemple mais aussi mu wane ne tey albinos yi ay nit lañu ay doomu aadama lañu dañ leen war a jàppale dañ leen war a tàggat dañ leen war a boole ci nit ñi et xool li nga xam ne mooy seen problème muy problème mu gis-gis bi ak problème mu yaram bi ñu jàppale leen ci. maanaam euh, ci wàllu jafe yi ngeen di dund. Mhm. waaw jafe-jafe yi ñuy dund euh, maanaam bu ñu waxee li nga xam ne mooy handicap bi muy euh, jàngoro puune bi ñu yor nga xam ne mënuñu def lu ëpp fanweeri minute ci naaj bi am nañ problème crème solaire am nañ aussi benn problème mooy problème mu accès ci jàng bi. Euh, accès ci formation ñu xam ne loolu lépp tey li nga xam ne moo koy saafara muy initiative yu mel nii li nga xam ne moom la maire bu Thiès def et centre bi nag li ñu ci xaw a jaaxal muy dañu dañuy ragal sax est-ce que entre état bi ak IDI moo tax ba léegi autorités yi ñu jàppale centre bi ndax centre bi depuis 87 ba léegi ñun ñu ngi xeex pour pour centre bi mën a taxaw mën a jàppale albinos yi ñu mën a am formation mën a am njàng mën a am ay liggéey ñi nga xam ne dañuy judd judduwaale silmaxa nga xam ne bu ñu amee sept mois la ñuy gis ñooñu aussi dañ leen war tàggat ci centre bi pour jàpp ci seen gis-gis ñu gis ne boobu ba léegi waaw am aussi ay crème solaire euh, am na projet bu ñu jox ambassadeur bi muy benn projet de fabrique de crème solaire boo xam dañ ko bëgg a def fii ñu gis ne daal boobu ba léegi ñi ngi wax mais maire bu Thiès rek moo jël initiative jàppale association bi jàppale centre bi. waaw gis nañ ne bu campagne jotee albinos yi dañu am problème sécurité problème sécurité bi ñu am mooy dañ leen di bëgg a rey pour di leen def ay sacrifice et ñu gis ne loolu yamul Sénégal rek mais ci sous région bi yëpp la nekk et loolu li nga xam ne tey moom lañ ci bëgg mooy autorité yi jël ay dispositions. parce que gis nañ ne sax bu yàggul dara rek am na benn pune bu ñu doon bëgg enlever fii Thiès ba côté hôpital régional lañ ko sànni et loolu lépp li koy waral mooy ba léegi matuwaay yi nga xam ne autorité yi war nañ ko jël pour fexe albinos yi mën a dund ci sécurité ragal gi nga xam ne moom la ñuy dundee ba mënatuñu génn mënatuñu jàngi ñu saafara loolu et initiative yu mel nii nag bëgg nañu ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy kilifa dëkk yi euh, ñu topp exemple mairie bu Thiès mën a ñoo beddeeku si centre bi xool jafe-jafe yi nga xam ne moom la Pounde yi nekkee vraiment ñu mën ko saafara parce que jafe-jafe yi du Thiès rek c'est dans les fukki régions yi ak ñeent ci Sénégal la Pounde nekk di dund ay jafe-jafe yu jéggi dayo marginalisation de l'exclusion donc des problèmes auxquels les albinos étaient confrontés dans ce temps. Et à la suite aussi, euh, au cours de nos activités de sensibilisation, l'ambassade des États-Unis nous a accompagnés à hauteur de 10 000 dollars. Donc euh, c'était en 1995 pour construire ce centre qui est le seul centre d'albinos en Afrique de l'Ouest et c'est un centre de promotion et de réinsertion des albinos du Sénégal et de la sous-région. Donc ce centre à Sampaté. et a été l'objet aujourd'hui d'une visite donc, euh, de M. le maire, Talasilla, et de son hôte qui est le, le, maire de la République de Tchèque. Il regroupe, il regroupe combien d'albinos Voilà, donc euh, l'association regroupe 10 500 albinos au niveau des 14 régions du Sénégal. Voilà. Voilà. Alors à Sampaté, vous avez Voilà, donc euh, les difficultés auxquelles les albinos sont confrontés et que nous avons toujours eu à, à sensibiliser dans ce sens, c'est l'inaccessibilité à l'éducation, à la formation, à l'emploi. Donc euh, ces problèmes aussi liés à des, à des problèmes de santé. Aujourd'hui, nous avons remarqué qu'au Sénégal, euh, la majeure partie des albinos sur les 98% qui sont des analphabètes sont aussi confrontés à des problèmes de santé. Et ces problèmes sont dus à l'inaccessibilité des crèmes solaires, l'inaccessibilité au niveau des soins de santé, mais aussi à la non-implication dans les filets sociaux, les programmes de filets sociaux. Vous avez entendu beaucoup de programmes que l'État a eu à dérouler au Sénégal, mais aujourd'hui qui laisse en rade beaucoup d'albinos. Si je prends l'exemple de la carte d'égalité des chances, aujourd'hui beaucoup d'albinos n'ont pas cette carte ou ne bénéficient pas de la bourse familiale. Ceux qui n'ont pas cette carte sont confrontés à des problèmes donc euh, d'état civil. Vous savez que quand l'albinos naît dans une famille avec toutes ses difficultés, les autres enfants sont beaucoup plus priorisés que cet albinos-là. Donc sa seule activité, c'est la mendicité. Aujourd'hui, donc, ces albinos sont dans ces familles et ne sont pas inscrits dans l'état pour ceux qui se sont battus pour avoir donc cette carte d'égalité des chances, ils n'ont pas été sélectionnés pour bénéficier de la bourse familiale. Ce qui est contradictoire avec la vision du président qui avait dit que toute personne vivant avec un handicap qui bénéficie de la carte d'égalité des chances doit automatiquement bénéficier de la bourse familiale. Donc c'est une euh, problème qui mérite donc d'être corrigé. Au-delà de ça, nous avons vu que les enfants albinos aussi sont euh, confrontés à des difficultés. mois à 7 ans est aveugle. Donc c'est à l'âge, c'est à l'âge de 7 mois qu'il commence à couvrir donc la vision, ce qui demande au niveau donc euh, de ce mois-là jusqu'à 2 ans une correction de la vision, d'où maintenant euh, la nécessité de cet albinos d'être présent dans ce centre qui aujourd'hui doit aider ces albinos à corriger leur vision, mais aussi doit les aider à pouvoir bénéficier donc d'une initiation pour pouvoir prétendre à une éducation saine. Donc aujourd'hui, dans la politique de l'État, on voit que l'État a, a, a, tendance à un peu euh, éliminer les, les, centres sociaux. Mais je dis que ce centre-là, c'est un centre communautaire qui reçoit des albinos et des non-albinos. Donc nous, ce que nous comprenons pas, que depuis euh, des années, nous avons eu à solliciter l'État, à solliciter donc les ministères, mais il n'y a que la municipalité de Thiès qui aujourd'hui prend l'initiative d'accompagner la politique de l'ANAS pour un peu aider ce centre-là à retrouver vraiment donc, euh, son axe normal pour pouvoir inclure les albinos. Donc aujourd'hui, les Nations Unies d'impliquer l'Union africaine pour que donc, euh, nos dirigeants, nos présidents puissent prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour bloquer les frontières, mettre en sorte les albinos qu'ils soient dans une sécurité totale. Ah,